tey je comme je disais tout à l'heure je continue à remercier borom dëkk bi le président de la République vraiment pour ce qu'il a fait maintenant euh, il a montré aussi que yëg na sport bi parce que gosse yi démb lu ñu def mais franchement euh, quand on est sportif dañuy da ngay kontaan booy football nañu te li gën a tax ba gën a kontaan ils sont allés fekk Tunisie bi nga xam ne day jàpp africain di leen noot foofu mais di leen ruusuloo foofu mais wulli leen foofu ba pare nag wan leen nag ñun fii dërëtu noir moo fii dox te day seen dëkk lañ nekk te dinañ leen wulli dóor leen benn trois zéro bu saf final ba ñu gagné ko comme ni ko président waxee rek six victoires quatorze buts marqués zéro but encaissé te raay ba foofu la teel mënoo ko passé d'accord mais non booy ma pare ci <laughs> man nag gàcce bi ma si am mooy hmm. lii Euh, la fête qu'on a vue hier au palais parce que aéroport ma buntu kër la ñu jaar. jamais vu une réception aussi magnifique. gendarmerie police gendarmerie police gendarmerie police doo doon toppante mais encadré booy yóbbu leen ba biir palais non c'était magnifique à voir lii d'habitude c'était le basket. basket moo am habitude di dugg palais di fa yàgg moo am habitude boobu ñun on est des habitués di palais. Mm. mais aujourd'hui c'est le contraire. c'est le football maintenant qui est habitué maintenant du palais. lu tax loolu moo koy expliqué. yéen a bàyyi euh, seen loxo mais mais mais bon. waa fédération bi la. on a un président minable. mais mais ah, pourquoi mais mais on a un président on a un président de fédération minable. et il est le yow ay bi nga xam ne xamoo ba booba yow si boobu sax noonu nga ubbee